asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi am na ñu digal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér ñëw ci njabootuk soxna Anta Ndiaye gépp soxna Anta Ndiaye mi nga xam ni lu am moom la soxna mi nga xam ni lépp lu ngeen gis ci liggéeyub Serigne Touba bii man nga ni soxna Anta lu bari moo ko waral kon nag junj doy na borom xel soxna Anta Ndiaye yàlla nañ ko yàlla fayal Alaaji Baara daana wax naan lépp soxna Anta Ndiaye ko waral kon mat naa yem foofu lépp Soxna Anta Ndiaye ko waral Soxna Anta Ndiaye wàcc nga am yaaram am ilimaan gàlli wu leen ci maaram kooku nag lañuy waajal bis boo xamee ni mooy tijji njàngum alquran ci bisu màggalu daaru salaam muy le 18 bii ñu nekk juillet fii ci pencum daaru salaam ci mbaar mi di ci woo ñëpp bàyyiwun kenn waaye ci njiital nag alxaaji Mor Fati Mbakke mi nga xam ne mooy xalifab maam Cheikh Anta Serigne Salihu Mbakke juróom wi nga xam ne mooy xalifab Serigne Afia Ahmadul Muxtaar waaye njabootuk soxna Faati Anta xalifab Serigne Mor Faati Touré bàyyi euh, Serigne Mouhamadou Lamine Touré Serigne Baara bàyyi Baara Touré mu Madina ak xalifab Serigne Modou min Touré ba ci njabootuk soxna Faati ture ba ci njabootuk soxna Boussa Touré doo ci tuddee Serigne Cheikh moom Serigne Saliou moom soxna Khady ak njabootu Baye Ibra mbakke doy na sëkk waaye njabootuk soxna Anta Mbacke muy soxna Anta Sali Mbacke di doomi soxna Anta Ndiaye Mbacke njabootuk soxna Mbène ak soxna Faati Mbacke mi wajuru seen Ibra njurul waaye ñu ngi woo mbooleem njaboot gi nga xamee ni ñoo sëtuwaat ci soxna Anta Ndiaye muy sëtaat ci soxna yëpp du ngeen gisee jotaay bi nag ngeen xam ni tey ñu ngi fii ci kër soxna maam Anta moom seriñ Modou Mamoun moom maam Cheikh Anta moom soxna Maymunatul Kubra moom Cheikhul Khadim di léppi euh, soxna Anta Ndiaye di sëtam waaye jiite liggéey bi yëpp am ay jëwriñ ñu mat sëkk mooy rakkam ji nga xam ni bëggut doon rakkam waaye ab taalibeem la bëgg a doon muy soxna maam Antam Serigne Ibrahima moom maam Serigne Afe Ahmadul Mokhtar ak soxna Maami Bousso mi nga xam ne doomi Serigne Mokhtar Bousso la moom Serigne Mbacke Bousso ak sona Awa Ndiaye mi nga xam ni ku ne xam na ni xaalimor euh, basinay maamam bokk ak bokk ak euh, maam maam Cheikh Anta ak soxna lépp ak Baye Fall Daaru yii nga xam ni soxna soxna Ndey Silla ak yaa Njaxat Silla ak sona Bintu Diop ak mboolem njaboot gi yëpp soxna maam Faati Silla ak mboolem ñi ngeen gis ci jotaay bi ñoo teewal ñi ngeen xame ni gisuñu leen ci jotaay bi di ci woo nag maam Anta Ndiaye yëpp mboolem maam Anta Ndiaye boo xamee ni yaa ngi ci yoonu murit ñu ngi la ci woo waaye di ci woo maam Anta Ndiaye yi nga xam ni dañ leen a yàgg jàppale ci bis bi gannaaw ba ñu amee ndigalul Serigne Jili mi nga xam ni mooy xalifab Cheikh Mamadou Mamoun ak Serigne Abo mi nga xam ni mooy seen mooy rakkam waaye soxna Daba mi nga xam ni mooy seen kilifa di seen Serigne di sëtub soxna Anta Ndiaye moo jiitu ci lépp. mooy mooy mooy jëwriñu bis bi mooy borom bis bi ak soxna Astu Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mamoun mi nga xam ne mooy magi soxna maam Anta te soxna maam Anta yoral ko liggéey bi mat ko sëkk waaye di woo mbooleem soxna Anta Ndiaye yëpp nag bàyyiwuñ kenn soxna maam Anta Dia moom alaaji Serigne Dia moom moom soxna Assu Dia ak Baye Omar Dia ñu ngi koy woo ci bis bi soxna maam Anta Dia alaaji Ibrahima Dia ñu ngi koy woo ci bis bi soxna maam Anta Lëy di jàmbaar ci bis bi moom itam ñu ngi ko ci woo ah, soxna maam Anta Lay moom alaaji Cheikh Lay fii ci gaawaan ñu ngi koy woo ci bis bi di ci woo nag njabootug Serigne Touba gépp bàyyiwun nag li ko tàmbalee ci kër Serigne Modou Mamoun ba ci kër Serigne Abdou Gora mii caatum maam Cheikh Anta njabootug maam gu jigéen gi ñu ngi leen di woo ñëpp njabootug Serigne Afe njabootug Serigne Modou Farmata ba ci njabootug Serigne Moustapha mii caatum Serigne Afe waaye fàttewun nag Serigne Abdoul Baaxe mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Xaas sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Lakaram ñu yóbbaale mbooleem sëti sëriñ Afe yëpp alaaji sëriñ Cheikh Anta moom sëriñ Modou Rokhaya mu yor kàddug Daaru Salaam nga xam ni sëtub Soxna Anta la ñaari yoon ñu ngi koy soñ ci bis bi di ko woo ci bis bi waaye di woo nag bundi kër yi maam Cheikh Anta yi niñ ko waxee yu jigéen yëpp mu njabootu sëñ gaawaan gu jigéen gi tàmbalee ci soxna Mbàkke Cheikh ba ci so ba ci soxna Daba mii nekkal leen fi tamat ko sëkk yàlla yàlla guddal fanam di ci woo mbooleem bunti kër yi mbokki soxna Anta Ndiaye yëpp njabootu sëriñ Ibra Kan yi mook soxna Anta Ndiaye bokk ndey ak baay ñaar ñu bokk ndey ak baay leen ñu ngi leen di woo ci bis bi tàmbalee ci njabootuk Serigne Bara Koura soxna Sofiatou Mbacke nekk fii ak njabootuk Serigne moor Maram ñu ngi leen di woo ci bis bi waaye di woo mbooleem njabootuk Serigne Touba gépp la ko tàmbalee ci kër Cheikh Mamadou Moustapha ba ci kër Cheikh Mamadou Mourtada di woo mbooleem njabootuk Serigne Touba gu jigéen gépp la ko tàmbalee ci kër soxna Fadja ba ci kër soxna Maymuna di woo mbooleem bunti kër yi sëñ Mor Anta Sali yëpp la ko tàmbalee ci kër Mamor Diarra ba ci kër Cheikh samba jaar Daarul Moxti jaar mbooleem bunti kër yëpp ñu ngi leen di woo njabootu sëñ Balla Coro ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi waaye di woo seex yoonu murit wépp ki waral bis bi daal mooy ki nga xam ni moo jëfoon jëf yu rëy ya ci Serigne Touba. kon nag soxna Anta Ndiaye lañ wooteel bis le 18 juillet di euh, di wàccaayu màggalub Daaru Salaam tàmbali njàngum alquran mi nga xam dinañ jàng juróomi fan ay kaamil alquran kon dañuy jox soxna Jee Cuun mi nga xam ni fii la dëkk ci dëkk bi di taalibe borom gaawaan mu wax ci turu mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñoo séq liggéey bi woote ci turu mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñoo séq liggéey bi suñu noppee ñu mën a tëj kàddu gi bisimilah rahmaani rahim barkab maam Cheikh Anta borom dërëm ak ngërëm suñu yaakaar fii ak fa nu jëm te matal ko sëkk mbàkke nuyu waaj waajtaayu daal Daaru Salaam ñaan yàlla dugg ci bisimilah rahmaani rahim jeexal ko yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin wax ji nuy wax di ko wax ci kàddu sëñ Mor Fatick kilifa gi moo dafa maam Cheikh Anta di ko wax ci kàddu ci ndigalal sëriñ Saaliwu mu sëriñ Afe di wa di seen waajur ñoom ñëpp di ko wax ci ndigalal sëriñ Jili Mbàkke sëriñ Abdou Khadir mu sëñ Modou Mamoun xalifa Daaru Salaam ak sëriñ Abo Mbàkke mu sëñ Modou Mamoun tabaarkàlla macha allah lii di sox lu soxna maam Anta Njaay Mbàkke sos ñu bëgg a sof sos nag sos sof dina ko yeggale ñu bëgg a góorgóorlu te xamal li ñu xamle wuñ ko sax ndax ñëpp ko xam maam Anta Ndiaye Mbacke mooy yoonu murit maam Anta Ndiaye Mbacke lépp mooma kër gune ne ci kilifa yi nu yaakaar fu ne tubaarkàlla nga dem fa fekk kër ga naat maam Anta Ndiaye nga fa ku ne tudde ma ku ne tudde maam Anta Ndiaye doom mbaa ku ko tuddewu doom am nga yéene tudde ko doom ku ko tuddewu doom sa doom tudde ko doom kon tubaarkàlla jërëjëf maam Anta Ndiaye jërëjëf maam Anta Ndiaye jaaraama maam jaara moom àndaloon liggéey bi ñuy woo maam Anta yëpp nag ñu digalal soxna maam Anta mu sëñ Moodu Maamun moom maam Cheikh Anta soxna maam Anta mu soxna may mu sëñ Bamba mu jël lépp teg ko ci loxoy rakkam ju tedd jii di soxna maam Anta moom sëñ Ibra Faati Moor moom sëñ Afe tubaarkàlla macha allah laaw la cet seen ñaari maam yi bokk lépp ñu bëggante ànd te yàlla tax xaritoo bokk ne am na xarit ak soxna maam Anta mii moom alaaji saam moom maam Cheikh Anta moom sëñ Abdou Diandoum dàkkente la di ko ni ñëpp yi xamee tubaar fa kàll la ñu ànd ko nag maam Anta yëpp soxna moom yi ngi ci biir moom sëriñ am soxna Awa Ndiaye mi ngi ci biir moom sëriñ Amdi soxna maam Ami mi ngi ci biir moom sëriñ Abo tubaar kàll la ñu nekk nag ci ginnaaw seen mag yii nga xam ni la taxoon sëñ Modou Roqee mag moo tax ñoom ñu mag di soxna Ndey Silla mii mu sëñ Modou Roqee ak soxna Ndey Njaxat Silla mu sëñ Modou Rokhaya tubaarkàlla waa kër sëñ Modou Rokhaya rek a toog ak waa Daaru Salaam ak soppe yi ak bëgg yi ak taalibe yi te maa amante Njaay Mbàkke biñ koy sosal daayira deqale lañ ko doon yóbbu buñ demee jox ko sëñ Fallou mi yor màggalu deqale xam ne ñun waa Daaru Salaam bëgg nañ sëñ Fallou xam ni ma fii lu maa amante Njaay yegg moo tax ñu sosal ko daayira daayira booba ci loxob sëñ Moustapha Al Karam lañ koy teg mu di ci jàmbaar di ci teg lu bari fonk ko lool di teel a ñëw lool di bàyyi ba ñëpp ñibbi mu doog a dem ku ko naw laa diggante boobu laa xaritoo moom ndax sëñ Moustapha Alakaram maamam da koo ñor kon noo ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fekke te yàgg koo jébbal lii ñu koy jébbal mu di ko def ci barab maamante Njaay Mbàkke ba te bañ ko tàmbalee léegi rëccuwuñ ci dara ren nag ñuy def première édition bi fii Daaru Salaam di ko tàmbali am ci ndigal di ko tàmbali ci bisum njàng mi di ko tàmbali di sant maamante Njaay defal ko journée yendul ko ba jant so ku mën a jàng jël sa jukki jàng ku mënta jàng yor sa kurus wax say salaatu na bi kon ñoo ngi sant ñëpp di woo ñëpp di ñaanal ñi ci jàpp maam Anta Lay moom Alaaji Seex Lay jàmbaar la ci woon wi maam Anta Dia jàmbaar la ci yoon wi tubaarkàlla maam Anta Mbàkke yi nag moom ñoom dama leen a jëleel ndax ñoom ñëpp ku ci sa yéene ci sa trondoo yàlla na ko yàlla àggale kon nag ak maam Anta Caam doon dama maam Seex Anta ñoo ngi leen di woo di woo soxna Astu Mbàkkam sëñ Moodu Maamu te Ndakaaru di woo njabootam noo ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn di woo la xalifa général Baye Fall yi sëriñ Cheikh faal am na at moo xam ne màggal gi ñoom lañ ko tuddee bi ko tuddee Baye Fall ku ñoo Daaru Salaam xam ne gi am na turandoo boobu maam Cheikh Ibra lañ ko tuddee di ko ñaan di ko ñaanal mu yàgg fi di wér ci jiital sëñ Muntaxa mbokk yi kon bis baa ngi noonu le 18 lay doon ñu koy yendoo fii ci Daaru Salaam ci penc mi sëriñ Asmor ja moo yor njàngum alxuraan mi nga xam ne ay kaamil la ñuy def di ko def addiyee soxna Anta Ndiaye waaye soxna Daba maam Cheikh Anta nag ku ne xam na ni mooy njiital bis bi ci lépp moom mi nga xam ni mooy suñu mooy mooy mooy mooy kilifa mboolem turandoo soxna Anta Ndiaye yëpp di soxna Anta Ndiaye ci ñun di woo mbooleem soxna ma antam suñu Ibra Ndar ak mboolem ma anta yi sëtu ci mboolem soxna Anta Ndiaye yëpp fàttewun kenn seriñ Maam Mor xam sa diine di sëtub soxna Anta Ndiaye di sëtub alaaji daam maam Cheikh Anta ak Serigne gala Galassine ñooy def waxtaan wa